sotte ko saafara si ma ngay wër digg géew bi moom Obeuly ndaysaan tey mu mel ni xale bi dafa décidé Obeuly mu mel ni daa décidé tey ma noonu ma daw Obeuly ma noonu di wër ndaysaan cey lamba garaaw lamba yéeme ndaysaan Obeuly ngi noonu waaye Zambala lay bëreel Adama kii mooy Zambala ndeysaan ndaanaan la boo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb rawatina li traditionnel bi moom Zambala arbitre baa ngi woote ndeysaan arbitre baa ngi woote léegi coow li jeex Obeuly oh, da daa wuy téléphone ba mu yàgg na sama maam nee na ma dem daan ko ñibbi sama maam nee na jeex na xaaral ma daan ko ñibbi moom Obeuly oh, loolu la wax ndeysaan ndeysaan ndeysaan Obeuly oh, ngi noonu ndeysaan ngi noonu ñoom ñaar Zambala am na lu ngoy xool ci bët ndeysaan Obale ngay fecc ndeysaan Obale ngay fecc Obali mi tey daa mel ni daa mu moom en tout lu mën a xew mooy Obali am na confiance trop ci Zambala mi muy bëreel waaye Zambala mbokk yi bu leen fàtte Zambala moo éliminé léegi Fils de Batlan demi-finale am Obali finale Obali moo daan léegi ndeysaan ma ngay fecc ndeysaan woo ndeysaan arbitre baa ngi leen woo arbitre baa ngi leen woo ndeysaan ndeysaan arbitre bi sifflé na mbokk ñu ngi fii ci terrain gal wax mag dem na ngeen jaali dagg war na mbaam lu waay doon jaay léegi bu lamb ndeysaan mbokk yi ñu ngi ci dimanche 28 mars 2021 terrain Gaal gui journée Diaks production mise bi 3 millions la arbitre bi sifflé na diggante Ngel Jon wala boog diggante Obeuli ndeysaan ma nga noonu moom Obeuli ndeysaan jiiti bëreg Zambala Zambala jiital tànk gauche Obeuli jiital tànk droite bëre bi day am ci ku jekku am ku mu jekkul la ma père Birahim Ndiaye daan wax sama papa ji yàlla na yàlla gën a guddal fanam père Birahim yàlla na la yàlla may gën a wér père Birahim yàlla na nga fi yàgg ba ca kanama ak kanam ndax suñu sak nga suñu njariñ nga suñu papa nga père Birahim Ndiaye guddal fan wéral amal jàmm ak mboolemi jullit père Birahim Ndiaye waaye ndeysaan ëbbale ngi noonu ndax daa am lu mësoon wax ci Obeuly nee na bu sérieux gën a taxaw jàppaat boppam gën a fonk làmb lépp lu mu ci làmb dina ko am ne ma mii gis naa ci moom xarañte gis naa ci moom mën a bëre gis naa ci moom ndaanaan Obeuly mi tey loolu la wane ba finaalu digganteem ak Zambala waaye Zambala njool la boo xamante ni daa mën a bëre daa am xam-xam daa joxe cër daa fonk li muy def moom Zambala bi mu dugg see ba tey compétition bi li muy gën di yàgg muy gën di wane boppam waaye ñu ngi noonu ci combat bi ba tey ñoom ñaar diggante Obeuly ak Zambala final bi kenn demul mu wane xam ne ni tey làmb ji gaa yëpp ngi xaar amateur yaa ngi xaar ndeysaan nga xam ne làmb séeréer wala li traditionnel Zambala fàqan na ko bu bañ Obeuly ngàdd na ko Zambala fayu na déedéet arbitre bi àtte na amul dóor ngadd moo am waa amul dóor ndaysaan ëppali nee na ko ok fils Zambala ñu dem Zambala ne ko waaw ñu dem <laughs> ndaysaan dañuy bëre dañuy waxtaan dañuy bëre dañuy waxtaan ëppali ndaysaan ëppali Zambala ñu ngi noonu di lewaatoo Zambala moom ngeen moom lu weex li wan leen ginnaaw Obeuli moom ngeen jàkkaarlool moom ngeen moom lu xonq li Obeuli na moo war a ëpp moo ëpp volume waaye taxul li moo ëpp doole de ndax làmb noonu lay demee. million fa teg de. fan. Sowal ku ko fa teg. Leewtoo production. Ndeysaan. Ndeysaan Pape Thialis. waaw Ndeysaan xale yaa nga fa. ndaysaan may nuyu Ousseyn bu baax a baax ma nga foofu di liggéey liggéey bu mucc ayib moom ak kàggu góorgóorlu leen tegale bu jubee te daanuwul bu jiitoo jub lool Adama le grand cadreur sama xarit sama doomu ndey foo ne maa nga fa Adama foo teg sa tànk maa nga fa teg sama tànk loo dugg ma ànd ceeg yow loo génn ma ànd ceeg moom Adama la grand cadreur maa ko cadreur de cadreur lum cadrewul baaxul waaye ba ñu ngi ci compétition bi dox ci diggante Zambala ak Obali ndeysaan Zambala ak Obali Zambala jiital pied gauche Obali jiital pied droite Zambala ngembo ngemb weex Obali ngembo ngemb xonq ndeysaan ñu ngi noonu ngàdd na ko jël na ko mu bañ Zambala Obali Obali taf na jàpp na ngemb Obali am na ngemb Zambala jàppul Obali bàyyi na mu ngi koy jéem a sol Obali mu ngi koy jéem a sol Obali lu mu bëgg wala Zambala la ko bëgg a def ñoom ñaar a ngi noonu Obali Zambala ndeysaan ñaari xale cey làmba ngi noonu ndeysaan làmba ngi noonu ndeysaan làmba ngi noonu Obeuly Zambala ndeysaan Obeuly Zambala Obeuly Zambala Ndeysaan Libidor Ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar Libidor Ndeysaan sànq éliminé nañ ko moom it ci compétition bi Ndeysaan ñu ngi noonu Obali Ndeysaan Ndeysaan baa ngi noonu ndeysaan arbitre bi àtte na arbitre bi àtte na temps ak Zambala ndeysaan Obeuli tàllal na ko ma ngay léemu ma ngay léewaatoog moom waaye ma ngi koy léemu ndeysaan Obeuli ak Beuli Zambala ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar ak Beuli Zambala ndeysaan ndeysaan ngàdd na ko mu bañ Zambala jël na tànk ba daan na ko Zambala daan na Obeuly Zambala daan na Obeuly Zambala daan na Obeuly Zambala daan na Obeuly Zambala daan na baax na sànq bëri c'est bon baax na barke alxuraanul karim champion billaahi wallaahi yaa def champion jaajëf ñoo far yow ba champion kaay kaay Adama kaay Zambala dem na